mais papa, papaam dama ko le ministère de la fonction publique mu suis aussi son patron donc suma jarbaat la hmm. yaayam ak tantam ñu bokk gendarme donc lu ñu boole dafa bari hmm. mais ce ñu fekk dakar ba indi ko fii laa leen bëgg a wax ndakaaru en dehors Lamine Gueye Il def 15 ans comme maire Il mu ko nekkee en 1964 a eu ay modification ci la maire par Maurice Gueye mais c'est Ousmane Sossé qui était élu et qui est parti à Washington représenter le Sénégal à l'ambassade Mais ce qu'on appelait le Grand Dakar Un président du conseil et administrateur nous avons fait di 1983 1983 si papa yi fi nekkoon ñu nekkoon Serigne ak ak ñëpp ñoo Nous ne dañu wara dem ci benn maire dañu Nous am élire loi bi assemblée était le rapporteur de la commission des lois Nous Nous ñu xex ba

dañ koy fal kenn du ko désigner kenn du ko tànn waaw ngeen bàyyi nag ba nga xam ne maire yi ngeen doon fal sax par le conseil municipal ngeen ne dañ koy démocratiser nañu bàyyi nit ñi fal leen mu bëgg a dellu gannaaw c'est-à-dire nit ku toll tubéy la ba si yàgg summi sa tubéy sànni taxaw jékki-jékki nga ne na nga def yaramu neen mais c'est extraordinaire personne xamul fan la ñu jëm donc man xaw ma lu ñu soxla. mais vous faites une affaire district ay affaire collectivité locale politique de localité est du ko ça ne s'importe pas amul qui ko xamni ki politique locale defaral ci ni nga ci sa organisation ci say coutume ci sa culture ci sa xeet ci ni ngeen mais du du marchandise bu ñuy importer ko diko exporter ngonté mag ji duñ ko tëgg ni maire bi amon na jamono yo xam amon na ay conseil municipaux xam ne comme ni ngi ko waxé légui ay organisation ñoko daan décider mais passé nañu lolu légui adduna bi mu ngi dox ci dañuy fal maire par conseil municipal passé nañ ko légui population ñokoy tanal sen seen bopp ñu ne Dieylaani de moom mooy nekk maire tay loolu mooy wax bi donc problème bi du problème PDS

Ablaye Wade bëggoon na tay tey nekk maire Kébémer waaw ñu nak suñu suñu maire dañuy bayyi kenn ku dëkk Tambacounda mu tànnalu ko mu jóge Linguère xam nga lan la c'est encore on nourrit ce complexe devant les Dakarois. Mmh, tout à fait. Mmh. nañ ñu bayyi ak li ñu am te ñoom ñu jël li ñu am wax naa ko keroog fële ma ne amna a ay toilettes wala ay ay ay quelques compartiments ben néegu 3 mètres carrés sur 4 muy 12 moo ëpp valeur historique que parcelle bi nek 350 mètres carrés à Diamniadio li kër gi forcé la historique pour le kër gi place yu yàq jëf ca le Colisée amna ay endroit yo xam a Dakar Sandial mais écoutez-moi duma wax lu bari mais Sandial quand même c'est la première institution médicale dans ce pays qui a fait la circoncision. Combien de personnes sont passées là-bas vous mm-hmm. nous le dispensaire. Mm-hmm. dispensaire hôpital bu Lamine Gueye bu tel tel ñu ne diw alaaji nangam nangam nangam ñu am 150 ans tey bu ñu doon dund foofu la ñu juddoo dafa le centre Elisabeth Diouf centre Bernard Ndiaye vous fële ah. nous avons une ville solide